assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mbokki kon tay dañ leen indil ay mbir yo xamne kep ko xamne da koy def rek dana tax yalla jéggal la say bàkkaar muy yomba def yo xamne ne daanaka mën na baña jëlal nit ki lu tolloog ben minute kon yu bari la kon ñu bay leen ngeen tewul ko def fonk ko bu baax ndax bàkkaar yu bari dana waral nit ki dana waral nit ki umu dana waral nit ki lu mu sàkku du ko am kon fexé tamit ba yalla di la jéggal say lu am solo la ci yef yi kon ñu bayi len gën téwlu ko alaykum wa rahmatullah bokk na ci kafara bakar bari lo julli ci yonantu bi julli ci yonantu bi mo gaaw ci kafara bakar day lak bakar, comme ni safar di laké ñax rawatina julle salatul fatihi so koy jang sa bàkkaar day lakku comme ni ñax ni ko safara di lakkee moo tax lu waay man ci góor góorgóorlu na góorgóorlu ci bari lu muy julli ci sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy fukkeeli kafaara bi ak juróom bokk na ci wax ji yonantu bi waxoon euh, benn waaye ñëw tawat ko ne ko damaa bari bàkkaar de bay jooy yonantu bi ne ko waxal lii allahuma maghfiratuka awsau min zunubi wa rahmatuka arja indi min amali waaja wax ko benn mu ne ko waxaat ko mu ne ko ñaar mu waxaat ko ba mu ñett mu ne ko doy na sa bàkkaar yi yàlla na la ko moo tax ñaan gu Cheikh na Tijaani fonkoon la ak suñ mag ñi allahuma aw awsau min zunubi wa ko arja indi min amali lu mu gàtt-gàtt nga jàng ko ñett yoon suba gi lu mu gàtt-gàtt nga jàng ko ñett yoon ci ngoon gi soo mënee def lu ko ëpp nag mu gën a baaxati lu baax a baax la gàtt na lool yomb na lool allahuma maxfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indi min hamali kuko wax rek yalla jegal sa bakari yi kon baxna na na ci ñuy wax bo lekke ñam ba pare ma nga nan ndox nga ne alhamdulillah xanaa manenko ñam nañ ko alhamdulillah bo ci mané dol alhamdulillah li fi atamani wa asbaani wa asqani wa arwani moy ma ngi sant yalla mi ma lo ñam bi moma lehal yalla mi nga xane moma jox ndox man nan ba mandi moo man nandal nga wax li rek ñetti yoon ñu jéggal ñew ci yoonu bi kenn ku da nga am problème sa problème bi la dal bokku ak sa problème morom sa problème li morom ki ñew ne ko man yoonu bi sama problème lenn la bay rek la yaakar rujna ujna jiw jina waye tol ba ngay yàqu ndox taw amut yonantu bi ne ko demal sax ci istighfar keneen ki ñew ne ko yonantu bi amna soxna Amna ay soxna ba legi gisaguma sama taw amaguma dom te yàgg na ki néegab sëy te dom la beug andak alal juma len dundale yonentou bi ne ko demal nga sax ci istighfar kenen ki ñew ne ko jiwu ndox amna, waye sama problème moy tol la amut fuma koy def yonentou bi ne ko demal nga sax ci istighfar. ñom ñoo ñep bañ ca saxé ba ci saat yonentou bi ki beggon dom am dom ak alal ki beggon tol am ko ki amon tol timit am taw yàlla tënk ne istaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaaran yursili sama aleykum midraaran borom taw baa ngoog wa yaj'al lakum jannatin maanaam ki ki bëggoon ndox a ngi noo kon yursili sama borom ndox maa ngoog wa yumditkum bi amwaalin wa baniin ki bëggoon doom ak ki alal a ngi noonu wa yaj'al lakum jannatin ki bëggoon ay tool tamit mi ngi noonu kon istighfar mooy lépp yonent toog boppam dafa wax te ba muy wax sax dafa gëñ yonentu lu mu wax dëgg la waxuma la lu mu gëñ dafa gëñ ne walladi nafsi bi yadihi law lam tusnibu wa tastaghfiru la dhahaba allahu bikum wala jaa bi qawmin yusnibuuna yusnibuuna wa na fa yaghfiru lahum buxaari yu yonent bi nee na waat naa ki yore sama bakkan ne su ngeen fi nekkutoon di mooy yàlla di ko jéggalu dana leen fi jëlee andi fi ñu koy mooy di ko jéggalu kon li nga ciy déggee yàlla bañut ko tilim xam nga ki bañ ki sanguwut yàlla lim bañ mooy ki sanguwut comme léegi tilim mënta ñàkk nañuy sangu